asalaamaaleykum mbokk yi ñuy bàyyi xel euh, ci jamono ji nekk saa su mbokk yi mu mel ni tey ñoo ngi fas yéene rek ànd ak yéen si seen jotaay bu am solo di seen jotaay bi nga xam ne moo di euh, kàggu mag ñi mbokk kàggu mag ñi nag moo ngi dox ci wàllu asraar waaye ci wàllu pajum cosaan ak aada tey nag mbokk fekk si waat fii jëmm ju baax jëmm ji nga xamante ni euh, bu ñu koy wax tamit mën nañu wax ni itam day daal di jëf waaye waxam bariwul lool muy sëriñ Babacar Diop ci boppam mbokk yi waaye day dox ci wàllu asraar ak wàllu pajum cosaan mbokk yi tey ñu fekk si ko fii nga xam ne ci rond point case boo fi egsi ba ci amoo 2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 allahuma salli ala seydina muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wala alihi wa sahbi salim rabbi sahli sadri wa amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli a'udhu bi kalimatillahi taamati min sharri ma bi kalimatillahi taamati min sharri ma xalaq a'udhu bi kalimatillahi taamati min sharri ma xalaq di leen dalal ci jotaay xam-xam jërëjëf euh, sang bi Diop sëriñ Babacar Diop tabarkalla sëñ Babacar mu mel nii xëy na ni ñu koy waxee rek sa euh, jot euh, taxu ko bari lool mu mel ni tam ñoo ngi la fekk ci li nga xamante mooy sa macha allah bi ñu la tam ñu gis la tamit da ngay assister li nga xamante ni moo di ñii nga xam ne ñoo ngi yëngu li nga xam ne muy jafe-jafe askan wi fi ñuy njëkk rek sëñ Babacar balaa ñuy sori lan moo la dugal ci wàllu li nga xam ni moo di ñaan yàlla ak paj ginnaaw si bu nit ñi xamee yow yaay sëriñ Babacar Diop tey. waaw mbiru yàlla ak moom dafay jot rek nit ki def ko gannaaw bu ma amee xam-xam ndax nit ki du du judd rek du judd nekk sëriñ dafay juddu jàng xam li mu war a xam gëstu li mu war a gëstu bu defee lu gën a bari ci ñi nga xam ne ñoo ngi faj di ñaan dafay amee lu ñuy wax secret lasraar lasraar bu ñu ko waxee tur yàlla euh, maanaam doo ci génne tur yàlla ndax tur yàlla moom mooy baas bi tambalé am ci iznul khas defee am cheikh yo xam ne ñoo la ci tarbiya defee buñ la tarbiya ci tur yàlla légui ci bir fatxu gi nga xamante ne yaa koy amé sa digënté ak sa borom légui fatxu day ànd ak xam-xam day ànd ak ijaba day ànd ak barke day ànd ak lèr gu yàlla dafay nit ki bu démé ba am fatxu xam faj ndax day am lu ñuy wax médecine prophétique mais seen prophétique yonent yi la ko yàlla di jox doon jox nga xam ne yonent yàlla saa ku ñëw ci moom bu raayee sa bët nga gis soo la fañee bu laaree sa tànk dox loolu yàlla moom la ko jagleeloon yonent yàlla Muhammad saa salaam itam moom bi nga xamee ne moo ngi ci jamono moom itam doon na faj def ruqiya ku ñëw ak feebar bu mën di amee bu la ci ñaanale suñu borom teggil la ko nga xam ne doon na faj ci lem doon na faj ci xabatu sawda doon na def tam ay maanaam ruqiya de mocc ni ki ñëw mu teg fenn nga ne fi muy met mu teg fa sa loxoom ñaa la mu deñ moo xam ci wàllu rab la ci wàllu cat nit ku bëgg wërsëg ku ko mës a ñaan loo yàlla ba mu la ñaanee la loo teg nga sa bët léegi al ulamaaw warasul anbiya borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi xam-xam nag dafa am ñaar أم حم حم باتن حم حم ظاهر عليهم إن دارو ما يانا خاصين من ظاهر وباتن سران كتيم حم حم باتن نك نيجا همان تنا نيوك أمي ما نيجا همان تنا دنيو سوبو دنيو خلنا نيوك سلوك بنيو سوبو أم شيخ يو همان تنا <hesitation> يو خمسين برام لين خم تري الله تقلنش أو يون ba yàlla def ñu dem ba làmboo xam-xam yu ñu doon xam yi nga xamante ne sax xëy na mosuñu woon xalaat ne doon ko am ci jamono léegi beneen xam-xam bi beneen faj bi di faj boo xam ne médecine divine médecine divine euh, médecine boobu mooy médecine médecine spirituelle rek médecine divine mooy comme sëriñ yi xam-xam bi ñu am di faj nga xam ne tey boo amee fatxu di nga gis garab garab gi na la ma nangam ak nangam ak nangam mooy sama ay njariñ moo xam da nga koy gént wala ñu saala ko wala ñu ilham la ko nga xam ne mbooleem garab yi bu ci nekk danga xam xam secret alquran bi tam wa nunazzilu mina alquran maa huwa shifaa'un wa rahma alquran itam loo ci jël rek yéene ci faj nit ki suñu borom def ci saafara ci kazalika bëri na daal yoo xamante ne nii euh, gannaaw dogalu yàlla bi euh, yàlla moo ñu ko séddee ndax sëriñ du kenn ku nekk mooy jóg rek ne dama bëgg a nekk sëriñ nekk ko fi ne yoon woo mën di jaar soo waree nekk sëriñ su jotee rek suñu borom moo lay toogloo faw mbir yi dikkal la ndax ñun ku ñu xam-xam ñu si yàlla si ndaw ba nii mosuñu wàcc suñu yoon mosuñu wàcc suñu yoon Euh, daan nekk ñoo xam ne jamono bu nekk dañuy lijjanti ay secret ay lijjanti ay secret fu ñu itam ñoo ngi tudd yàlla di ko sàbbaa te loolu jubluwuñ sax maanaam li suñu borom defal ne jubluwuñ ko si woon li ñu jubluwoon ci loolu rek jaamu ko nekk nekk ay jaam yoo xam ne suñu borom day day nangu suñu jaamu nekk ay habit rek lañ si jubluwoon bu defee nag yoon woowu moo ànd ak lii moo ànd ak ñaan moo ànd ak faj. bu dee ci wàllu faj itam doyul rek maanaam euh, ma ne doyul rek euh, maanaam ñu yem rek ci euh, xam nañ feebar sàngam mën nañ koo faj jamono bu nekk ñuy ngi gëstu di dooleeku fu mu toll rek ñoo gëstu muy dooleeku ndax max mahdi ilal lahdi xam-xam moom boo xasee nee nañ boo ñëwee ci ci berceau ba ñu lay teg ci jàkk jamono bu ne war a dooleeku xam-xam. sëñ Babacar est-ce que euh, lii tey nga toogee tey muy wàllu ñaan yàlla asraar ak pajum cosaan bi euh, say jur dañ ci doon yëngu wala danga amoon maam ju ci nekkoon wala. waaw man moom sama wàllu yëpp sama wàllu yëpp muy wàllu sama côté yaay euh, am na mbayeen bi ñuy wax Keera Mbay nga am ne waaye taxul nag moom ma xam leen taxul ma xam leen ndax sama maam damay wax chaque jour naan war ngaa xamanteeg. ñoom am nañ tour sax boo xam ne dañ koy faral di amal sama wàllu baay tam ñoom itam ñu nekk nitu alxuraan waaye li ëpp solo te ëpp doole mooy li nga xam ne xosoo si yàlla lépp yàlla jagleel boppam moo ëpp doole ndono am na am na solo waaye li nga xam ne xaas la yàlla moo ko def ci yow loolu amul lenn lu koy dindi da nga koy judduwaale ñun lii ñu am dañ ko judduwaale ndax euh, am na mandarga yu bari yoo xam ne yàgg na feeñ si ñun am ne si si ndaw ñun ñu daan wan lu bëree bëree bëree bëri dañuy toog fi di gis lu sore sori di xam lu ñëwagul te loolu ci ndaw la euh, nga xam ne booba dañu doon noppiloo dañu doon noppiloo mbokk yi yéen ko dégg tey muy jotaay bu nara am solo di euh, sëriñ Babacar euh, Diop mbokk yi di leen fàtt rek di xam-xamam màcc la ci wàllu asrar wàll ci wàllu pajum cosaan mbokk yi di leen fàtt rek nii euh, moom la ñu fekk tey fii ci résidence am ci laboratoire bi nga xam ne dafiy dimbalanteeg askan wi fii ci rond point case bi boo ñëwee ba ci amoo deux en face kër chef de quartier bi sëriñ Babacar fu may jëm directement mooy li nga xam ne dafa yëtteel askan wi sonal askan wi mu nekk loo xamante nii itam ëpp na nga romb benn kër ñaar ba ñetteelu kër gisoo koo xam ne moo ngi dundee jàngoro bu doy waar bi euh, di hémorroïde ñu ñëw ci hémorroïde lan mooy hémorroïde. waaw hémorroïde moom ñun képp ku ñuy faj moo xam beneen feebar la da ngay gis boo ko tàmbalee di ko fajal nit ki rek da wax ci biir feebar bi na la man de garab bi mu ko jëlee sentir naa sax sama hémorroïde maanaam commencé na di ci wéraale nga xam ne du la woon wax ne am na ko nga xam ne léegi boo xoolee fukki yoo jël. juróom benn yi ñoo ngi doxaale hémorroïde juróom benn yi ñoo ngi doxaale hémorroïde hémorroïde feebar la boo xam ne euh, bu dalee nit ki mën naa faju fu bëree bëree bëree bëree bëree du wér te lu mu gën a yàgg gën a dëgër bopp bu jëkkoon bu ñuy xas nit ki sa dañ ko ni nga dëgëree bopp ni picc kajoor mën naa génn nit ki ci nit ki nekk picc laata muy def loolu picc bi ci biir lay nekk bu nekkee ci biiru nit ki dinay waral muy am ay bruit biir bi di jooy fu mu toll nga xam ne mu ngaa toog fii kee toog fële ngay dégg biir bi biir bi nu muy jooyee def gur loolu hémorroïde moo koy def euh, seere bu dëkk nga xam ne fi mu dal fu mu tool dafay seere fu mu toll dafay seere ba pare boole ko biir bi day jël ngelaw su demoon tey wanag dara du génn parfois ngalaw rek mooy génn loolu hémorroïde daf koy def ak lu ñuy wax euh, yaram buy tàng am na sa yaram day dëkkee di tàng say bët lëndëm mu jàpp tam sa ndigg bi parfois mu wàcc jàpp sa articulation yi sa mbag yi sa omi sa cheville yi xam ne hémorroïde bu yàgg ci nit ki ba yàgg noonu la koy def fu mu toll rek da koy day mel dafay fas yaram bi Euh, ba pare day néewal góor kàttan parce que hémorroïde fi mu nekk dafa combiner xam nga anus nit ki maanaam anusam anus ak sàkkaraam dañoo communiquer moo tax ku am hémorroïde te fajoo ko bu yàggee dafa lay téye ci wàllu ngóora bu téyee sa ngóora lu yàgg yàgg yàgg yàgg bu yàgg ba yàgg day yàq sa mànd yu day ba daf koy yàq bokk na ci yàq mànd yu hémorroïde ci la bokk nga xam ne bu yàgg ba yàgg picc bi daal di génn ci suuf nekk ay picc yu wër commencé di nàcc nga xam ne nit ki am na ñoo xam ne dafa leen dal ba dañu bëgg dem duus waaye duñu mën a dem duus ndax mettit bi muy metti nga xam day metti bu ñu cuubee rek day mel ni comme aduna buy bëgg a tukki mettitam foo ko takk foo ko takk weesu na ko foo ko takk doo mën a toog doo mën a tëdd doo mën a taxaw. sëñ baabakar ginnaaw ni ñu déggee jàngoro ju doy waar jooju comme ni nga ko waxee euh, dañu doon dégg euh, kenn mës naa toog ak kenn muy wax rek mu ne euh, son noon dëgg bu son noon dëgg bu lay ñaanal danaan la dalay ñaanal yàlla nga am hémorroïde parce que nee na dal gi mu ko mosoon a dala tax xam li ki li ki hémorroïde tax léegi ginnaaw si wax nga ñu jàngoro boobu itam ni muy manifesté wu ak ni mu mel est-ce que fi traitement bi traitement baa ngi fi. waaw moom. kem nu mu yàggee si nit ki rek kem traitement bi yàggee noonu ndax na ngay da ngay dégg sell bi télé bi ko naan na hémorroïde dama koy faj ci ñetti fan ak dama koy faj ci juróom-ñaari fan loolu képp koy wax rek dafa desee xam hémorroïde ndax hémorroïde bu fekkee jibbi na ba génn ci biti fekk na boobu saxoon na ci biir lu yàgg am ñoo xam ne dal na fukki at ak juróom ñi ñaar fukki at ñi fanweeri at bu fekkee dafa am maanaam yoonu faj nga xam faj ak logique da xam ne maanaam feebar bi nekkul feebar boo xam ne da nga koy sekk ni dëkk teg fële feebar la boo xam ne lu mu gën a yàgg si nit rek gën a dëgër bopp te bu yàgg ba yàgg am na ñoo xam ne fi dañ naan faj naa sama humeur fu nekk mënut a wér fekk na dafay dem ba egg ba egg foo xam ne day mujj nekk tumeur tumeur mooy cancer bi door a commencé nga xam ne dootul gaaw a wér mën ngaa wër sëriñ si ba sonn il faut ñu joxaale loo xam ne. dafay dindi tumeur boobu nga door a wér hémorroïde bu yàgg ba yàgg mën naa jurandi ki cancer. dégg nañ nga wax ci côté góor ñi xëy na mën na dem ba yàq seen man yu dem ba tamit ba yóbbu leen ci li nga xamante maanaam góor gu mënul boppam maanaam euh, tële euh, jigéen moom lan la ko mën a yàqal jigéen ñi nga xam tamit ñoom ñoo ngi doxalee ak te ñu si bari bari dangay ngay dégg euh, soxna yooyu xam ne dañ naan la ba ñuy accoucher ci accouchement accouchement maanaam njurum am doom ci lañ koy soog a gis. Hmm. waaw xam nga bu dee ci jigéen ñi moom ñu bëri ñoo ngi ko amee ci mbiru am doom ndax pousse bi ñuy pousse moo koy génne waaye bu ñu toogaatee ma 2 mois 3 mois mu reesaat am na nga ñoo xam ne moom loolu joxu leen ko comme ni mu dalee góor ña leen dalee dafa tàmbale ji génn ci biir ba fes ci biir bi daal di génn ci biti bu defee ñooñu mën naa dem ba tere leen a ëmb wala dem ba du ñu amati plaisir ci wàllu sëy bu ndee sëy du ñu yëg dara ci bànneex wala mën naa dem ba nga xam ne suñu ànd ak góor sax day day day metti bu ñuy sëy dafay metti hémorroïde moom noonu la mel. jërëjëf sëriñ Babacar euh, Diop yaakaar naa loolu leer na mbokk yi di leen fàttali rek numéro téléphone yi ñoo ngi noonu rek affiché ci baaru écran bi 77 755 24 24 wala beneen numéro bi 77 864.

toogaay bi yàgg te am na ñoo xam ne sax xeruñu ci ci pat te dal na leen siti moom moo mooy yàgg ci nit ki rek ba jural ko hémorroïde bu ko defee xam nga siti dafay ànd ak deretu doomu aadama bi bu ko defee bu ànd ak deret ji mën naa diisal deret ji ba nu mu war a dawee du ko dawee nga xam ne léegi day am foo xam ne wàcc ndax hémorroïde xam nga euh, dilatation la boo xam ne dafay nekk ci anus bi léegi foofu mu am dilatation bu ko defee mel lu funki gonflé génn naju léegi deret bu dis moo nekk deret ji moo moo wàcc foofu. mais mais moo tax ñu ne la plupart ku am hémorroïde am siti rek ngóora gi ñëw na ñàkk ngóora bi maanaam néew kàttan bi foofu laa jëm mu nekk loo xam ne lu lu lu doy waar ah, muy phénomène mondial néew kattan bi moom euh, sëñ Babacar lëmbee na jamono gi waaye nag ñu ne da nga ci yor lu yéeme yéeme sañ Babacar tam xaw ma nag loolu euh, sa secret fan la ci wàllu euh, impuissance néew kattan. wàllu impuissance sexuelle moom. sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax itam lu ñu gëstu la bu baax a baax a baax a baax a baax a baax nga xam ci loo xamante ne nii lu wér a wér a wér la moom benn fan lañ lañ ci traité nit ki ki am ki impuissance bu ñëwee benn fan mu deñ bu ko defee léegi nga xam dafay topp traitement bi continuer ko ndax impuissance bu jàppee nit ki mën naa jéem guddig lëmm soxnaam lu ne mu daj ko day mujj daal di rek daal di ko wan ginnaaw bu ko defee waa ji moom itam wan ginnaaw wane ginnaaw nga xam ne day dem ba day yàq couple yi am ñoo xam ne nii fi mu ne nii fu mën na mën na am érection nii maanaam yëkku seen seen seen xel ko seen xel nii ba am érection ba nga xam ne léegi ànd ak seen soxna moo des fi ñu jógee ak fi ñu jëm diggante même bu dee ay cersa sax balaa ñu egg mu wàccaat te bu wàccee. lu ne den ko jéem lu ne den ko naan du tee mu mel ni rek loo xamante ne nii dafa grâce de see nekk dara duñ ko mën nga xam ne góor ñu mu dal te fajuñu ko day mujj ndax dafa maanaam damay wax ne te tële du tëb tëb rek dal góor am na am na signe ay alerte yu muy def ba pare benn nit ki su fekkee ne su seeyee ba daanu balaa mu mën a seyaat ab diir bu yàgg wala ay fan ci lay door a yëgaate boppam na xam ne tëleen ko yoon mu faju wala guddig lëmm nga nalaw bu bët set te yëgoo sa bopp loolu góor gu mu daal na xam ne tële yor na ko mu faju wala maanaam bëri lu muy am dysfonctionnement bari loo xam ne day bëgg di sëy muy jafe nga xam ne bu ñu dem ba nga xam ne bu ñu naanul naanul dara rek duñ mën a sëy

da koy peeral ba nga xamne ne simé ko dañu mel comme pa comme ko xamne dafa am 70 ans te fek xale yu ndaw lañu doon loolu impuissant da koy def yëpp bu dajana ci doomu adama bi ak mu yaa léegi nag tële daal di dik seigne sëñ Babacar loolu yëpp bu amé tam dem ba tollu phase bobu ndax ne pa nekkul loo xam lu xaw yéex la pour pour pour meuna delu sorti jamono. wa lolou manam xawna yéex ci nga traité ko waaye dina wér. waaye da nekk traitement boo xam ne gàtt gàtt un mois et demi lay doon. donte le garab bi lay faj moom bés bi nga ko jëlee rek war na la waran boppam. képp koo xam ne nii yaa ngi traité wu garab bi la war a faj premier jour bi nga ko jëlee rek. daf lay wan boppam. da wan ne la carrément maa lay faj. mbokk yi ñu leen ko waxee ba léegi rek ñuy ànd ak sëriñ Babacar Diop mbokk di yëngu ci wàllu asrar waaye ci wàllu pajum cosaan ak aada mbokk di leen ko fàttali lu am solo fii ci rond point case bi euh, boo ñëwee ba ci amoo de numéro yaa ngi noonu rek di ko affiché rek ndax euh, askan wi itam di ko yittewoo 77 755 24 24 wala 77 sëriñ euh, Babacar fi may jëm rek muy wàllu prostate prostate ñu bëri nga koy tudd waaye dégg na ñoo xam ne tudd bi rek xam nañ ko waaye dañ ko desee xam euh, nga ñëwel ñu tuuti lan mooy prostate. waaw prostate moom feebar la boo xam ne mag lay gën a dal euh, nga xam ne hypertrophie lay doon béni de la prostate euh, bu dalee góor tuur ndoxam du àgg mukk buy tuur ndox dafay dagg wala bu taxawee di saw bu sawee tuuti rek mel ni comme saw mi jeex na dara dootu génn waaye ba tey day des ci biir xam nga euh, prostate organe la bu nekk ci doomu aadama euh, organe boobu su demee ba nekk hypertrophie bëgg rëy ba nga xam ne léegi am na déformé wu na ba nga xam ne léegi malformation la ci lay nekké ci lañ koy wax fièvre prostate nga xam day naj saw bi légui bu nañé saw bi fi fi muy jaar pour génn day fatte ba nga xamné ne tuutay génn li wara génn lépp du génn légui nga xamné saw bi day fekkante fofu day fekkante fofu nga defé yàgg taaje bi mu yàgg taaje day dem ba fofu mu nekk day nëx bu démé ba nëx mën naa dem ba nit ba xamné nit ki buy saw saw bi day changer couleur mën né génne lu mel lu xonk wala lu marron wala yooyu boo àggee foofu nag mu ngi am risque cancer waaw. waaw mais mais loolu loolu euh, ndax góor rek lay dal wala wala ndax day dal jigéen. prostate góor rek lay dal parce que organe boobu ci góor rek lay nekk du nekk ci jigéen. mais traitement moom bu demee am na ñoo xam dañuy dem bay wax ni dañuy jël ay sonde pour mu ñu mën a sondi pour mën a dem tuur ndox euh, est-ce que bu eggee ci phase boobu nekkul loo xam ne lu trop tard la pour mën ko traiter. Euh, phase boobu moom nit ki à accès parce que feebar yu bëree bëri bu ñu ko opéré euh, am traitement yoo xam ne dina ko faj fàcc lu gaaw mais bu àggee ci di jël sonde itam du tee. garab yi ñu lay jox dana dana ko mëna déboucher dana ko mëna déboucher inshallah légui euh nga gis ne tam am na ñoo xam ne prostate bi ñu amee day tax duñ mën a téye seen saw lal bi ñu tëdd dañ koy saw ba mu fees wala duñ mën a téye seen saw duñ mën a téye liggéey duñ mën def dara ndax bu ñu safee saw dañuy jeg saagar mu génn duñ ko mën a téye Euh, loolu tam feebar la boo xam ne prostate da koy def. mais moom loolu trai traitement am euh, fii tey ci sa euh, cabinet bi nga xam ne toll nga ci mu mel ni tam nekk na tawat bu complexe surtout tam mag ñi ñu ci bëri bari seetlu nañ ko ci mag ñi loolu nag naka ngay jëflante ak ñoom. waaw loolu du question mag rek lay dal day dee sax xale day dal xale am na tam ñu koy jaawale ak suppis suppis moom xale dana dal xale comme dana dal mag mais suppis mooy gën a dal xale yi. gis xale boo xam daana sëñ bi man prostate laa amee day dégg prostate yaakaar ne prostate moo ko dal bu ñëwee daan na la man prostate laa amee ah boo ko nee nu mu lay def mu ne dafa lay day fatt su may saw du ma mën a saw wala day tas wala parfois sama kanam bi dafay tooy wala parfois day am xet fekk loolu soppis moo koy def soppis tam ñun maanaam dañ koy faj ci maanaam li ñu lay jox du génn une semaine mu wér bu dee soppis la li jox du génn une semaine mu wér bu dee prostate itam boo toppee traitement bi euh, incha allah nga koy saw ba mu set maanaam kii tilim bi nekk foofu taaje yëpp ba nga koy saw ba mu génn waaw jërëjëf sëriñ Babacar euh, Diop yaakaar naa loolu euh, leer na xam naa ne waxtu bi mooy mooy mooy dab ndax yow sunu jotaay sax xajul ci euh, wax ma la sax ci ñaari waxtu waaye fi ma jëm hépatite tamit moom nekk na loo xam ni muy jàngoro joo xam ne ñu bëri tamit xamuñu ko te moo ngi indi loraange lu bare bare bare bare bari mu nekk loo xam tamit lu gaaw a wàlle la tam ñu ñëwaat tamit ci hépatite ci ñi nga xamul nan lay manifesté wu ci nit ki pour mu xam ni man mii am naa hépatite waaye balaa ñuy sori lan mooy hépatite B. B dafa am bu ñuy wax actif ak inactif. am boo xam ne ki da koy jutuwaale yaayam da koy am wàll ko nga xam ne nag boobu man moom inactif lay doon du manifesté wu benn yoon waaye bu demee tey hôpital bu ñu xool dañ koy gis am boo xam ne la ni muy manifesté wu boobu dina war a nit ki mel ku grippé nga xam lu gën a bëri sax euh, am na ñoo xam ne ñu ngi jëlee hépatite bu dee ci tubaab moom naan sàngar bopp moo leen koy jox mais bu dee comme suñu dëkk yi moom nit ki mën na am sibbiru bu chronique yàgg ci moom ba mu yaakaar na wér na mu dem ba nekk pays pays nag moom mooy jur hépatite parce que pays du àggul ci laal fois bi bu demee ba laal fois lañu wax ne hépatite léegi nga xam ne sibbiru lay doon moom mooy liir bi waxambaane bi moom mooy pays hépatite nag mooy seen kilifa léegi nag hépatite boobu moo xam laal na foie nit ki moo xam laalu ko garab bi nga xam ne moom lañ koy jox dafay raxas fois ba mu set hépatite bu jàppee ne ki fi nga xam ne moom moo tolloog fi resam nekk da gis day def nii taf taf tëf tëf tëf tëf tëf ba pare boole ko mën naa dem ba zone ay bëtam day mettam biiram day jàpp di ginnaaw gi day am insomnie guddi gi du nalaw balaa mu mën a nalaw rek bët di waaja set tayaloo yaram bi boole ko day dem ba gémmiñam dafay lewet buy sow day jaune hépatite da koy def euh, nga xam ne bu xësee ñaay day mel ni fas woo xam dafa rëcc lu ko téye yombul te man bu fekkee waa bitim yi may yi may woo ñoom bu demee seen médecin yi war koo traité dañ naan la dañ leen wax ne leen tànk nekkul lu actif mun ñu si def inter mun ñu si intervenir te bu nekkee actif nag boobaa day mel na fas wu rëcc. téye ko dootul yomb kon laata ngay xaar mu actif traité ko waaw yaakaar naa loolu leer na sëriñ Babacar euh, Diop yaakaar naa moom li ñuy faral di wax rek mooy euh, aussi surtout euh, jàngoro da nga koy weer rek balaa ëllëg itam mu lay weer yaakaar naa ni noonu la la biir réew ràññee bu baax a baax ak biti réew macha allah ci liggéey bi nga xam ni yàgg nga koo def itam xëy na tey li ci li askan wi di tuuti rek mooy parfois jafe jot bi xëy na sa toog moo dul bari lool ci ci ci ci diwaan bi nga xam ne tey fii nga nekk fii la ñu la fekk sa résidence di fii ci diwaanu Ndakaaru waaye itam di leen ko fàttaloo ba léegi rek mbokk yi téléphone yaa ngi noonu rek affiché ci baaru bi fi dox euh, jigéen bi nga xam ni mënta am doom ak góor bi nga xam ni mën mënta am doom te lu ne def nañ ko ah lu ne def nañ ko xëy na léeg nga dem ci ñoo xam ne dañu naan la dem naa ci traitement bi sax ba l'hôpital gis nañ xool nañ ma mais xam nañ ni li ma tere am doom gisuñu ko euh, ku góor ki tamit fazalika tamit wax mën na kaame moomu euh, loolu tey lan moo ci lan moo ciy pexe. waaw xam nga mbiru am xam ne am nañ ko te dem ci sëriñ dañ leen di wax naan leen rab la moom Sénégal moom amal nañ ak rab yi trop parce Euh, lu dal nit ki rek ñu ne ko rab moo la jàpp moo tax daal war nañoo jégalu rab yi ndax sonal nañ rab yi trop day gis góor boo xam ne jigéen boo xam ne day ëmb muy dañ euh, te fekk ne da tax muy ëmb muy dañ sa xëy na si jëkkër ji la jëkkëram la manuum normalul bu ko defee am na feebar yu bëri yoo xam ne bu dalee góor da koy tee am doom am na comme feebar yu bëri yoo xam ne bu dalee jigéen tam da koy tee am doom lu mel ni waa am kyste ovarienne ولا بو امي في بروم ولا اي ترومب ام بوشي ولا مو امي ندوخو سيتي اك اموريد بما ليم سانك سي غيناو يوي ييب مونا تي جيغن باغا خامني دو ام دو ولا انفيكسيون انفيكسيون سو بري لومي دال جيغن رك دا فاي تي دا كوي تي ام دو تي انفيكسيون غور ني نيوكي ام بارفا والو كو جيغي ني بارفا بو فكه ني تام نيتي غور غور يغا خام سين اسبرم دا فا ياخ باخول ndax amna fever bu beuri bu dalé gor day yak spermam lu mel ni ay varicocèle oligosperme azoosperme actinosperme yooyu yëpp bu dalee góor dafa yàq spermam nga defee buy sëy soxnaam fu mu toll am infection bokk na si ni nga xamee ne góor bii kat maan yoom baaxul euh, su fekkee dafa oyof trop wala couleur bi changé wala bu sëyee ba pare bu nee soxnaam bu jógee di sangu lépp tuuruwaat loolu day wane ne maan yu baaxul nga defee góor yi nga xamante ne nii am nañ problème am doom Euh, ñun am nañ traitement boo xam ne bi asnilaahi taala képp ku ñëw si ñun buñ la buñ la traité di nga am doom ci kàttan suñu borom. waaye sëñ Babacar li ma jaaxal waxtu bi dab nañu te gis nga asraar bi sax ñu ci lenn ci benn simili yaakaar naa bu ñu ko mënee may sax euh, rek nga wax li ngay tënk xëy na du ñàkk ñu ñëw développé waat yaakaar naa askan wi dinañ la topp ndax njariñ gi nga xam ne gis nañ ko ci yow loolu rek metti nañu ndax waxtu bi dab nañu xëy na ci simili sax matatul noonu euh, wàllu ñaan yàlla lan ak lan ngay traité ginnaaw ci war nañ ko mën a développé waat suñu yeneen jotaay wàllu ñaan yàlla moom nit ñi bu dee Sénégal fii moom nit ñi seen jafe-jafe bu dee jigéen ñi tam ñàkk am euh, jëkkër ubbeeku nag moom buñ ko waxee bu nit ki ubbeekoo bu dee liggéey dina am te lii waral nit ki tëju benn rab cat wala liggéey ñett yooyu la te bu mu ci mën doon dañ koy sekk ni dégg bismillah sëñ Babacar Diop la su kontaan nañ ki yow tamit disponibilité bi ñu may ngir askan gi mën a jariñu ah, ku xam sañ ku la xam dëgg-dëgg xam ne itam njariñ dañ ko fi fekk bu baax looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo di wax waaleykum salaam wa di leen dox digg daje ci yeneen ni jotaay di ñaan yàlla wàcce fi xéwal ak jàmm wàcc ko ci àdduna bi yëpp waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi gis ngeen ko itam muy sëriñ Babacar Diop mbokk yi macha allah sunu borom baaxal ko loolu ci wàllu ñaan yàlla asraar waaye itam ci wàllu pajum cosaan ak aada tey ñu fekk si waatoon ko tey ci jotaayu kàggu mag ñi muy li nga xam ne macha allah da ko xel ngir jox ko askan wi ñu fekk si ko tey fii ci résidence am boo ñëwee ba ci rond point case bi ci amo 2 en face kër chef de quartier bi numéro yaa ngi noonu rek di affiché ci baaru écran bi 77 755 24 24 wala beneen numéro bi 77 864 2589 89 yi moo ngi noonu rek yéen ñu ko rek bu leen ñëwee incha allah jege si rek da ngeen ko daal di gis waaye itam ni ñu koy waxee itam toogam bariwul lool ci wàllu présentation bi Mouhamadou Lamine Muntaka ci wàllu caméra bi réalisation bi ak ci wàllu éclairage bi ak montage bi bi ba di leen jox dig daje ci beneen jotaay incha ak Serigne Babacar Diop di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.